waaw li ñëpp doon jooy daa mel ni léegi mu jeex suñu papa ma nga dëng nii parce que mbër yi doon jël ay waa CNG jóge nañ ba Dakar ñëw saytu si loolu noonu kon vidéo yaa ngi def effet ëpp baax na ci laax bu tàng finaliste mu ngi nii poids waaw kii kii soni nakk yi nakk bi nakk ma nii waaw le vingt dix dix de lamb ji ñaata nag la am cinq lamb mën na lu ne benn ngoon cinq na nga am gét Obeuly ziar nañ la. waaw ziar naa la Lamyn TV. lépp jàmm gars yi taxaw leen. nga ñëw si lamb ji bëre fi lu rëy. waaw neexal lamb ji fecci ko bëre ko daan ko yóbbu lamb ji looy wax loo sant nga jëlee lamb ji. a sant yàlla rek bu baax ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax a baax. waaw jóge si yonent bi waaw. parce que Guy moom du suñu jàmbaar suñu borom rek parce que premier tour premier tour gënu leen di ñaan xam nga lépp lu nar am lamb rek yàlla na suñu wërsëg yi suñu wërsëg rek a ñu jëm si waaw waaw di sant yàlla bu baax di jóge si yonente bi mhm. waaw di sant waa yaayam di sant waa arrondissement bi yëpp di sant région de fatik bi yëpp di nuyu képp kuy bëgg Ibou Ndiaye képp kuy doomu séeréer képp kuy bëgg Ibou Ndiaye partout maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñëpp mhm. ak ñu gis gaay liñ doon yooyu ay ati at mais ren de cee gi gii ñu gis fan yi lu am solo ah. maanaam amul solo sax lu ñu luñ naqarlu ah. ñaari nag mbër yoo xam ne dañoo jël ay nag nag yi dee ba tey suñu papa a doo joge ba dakaar ñëw superviser si nag yi ñu teg fii ci ci yaayam loolu loo siy wax Lamine daaw man dégg naa ñetti nag ñetti nag barke say maama parce que gars yi des fois dañuy teg nag yoo xamante ne da ngay ree ba tas lamb ni méttee entraînement yi métti préparation yi mhm. waaj ko ñëw bëree di bëri di bëri ba jël làmb ji yow jël nak bi ba nga yegg mu dee wala nga yegg mu mu fanaan mu fanan choono bi dañu fekk nak bi mu dee gaay dañu nañuy yërëm xol nak yi ñu tek kéro kaaral xam nga nak yu mhm. tok nonu buñ ko don tek ci làmb te làmb méritoon na ay nak yu baax ay nak yu baax gaay nañu bu baax di gëna tek nak yi nga xamanteni ay nak même bu ndawé sax mu wër parce que sa chaîne bi ni ci aduna bi yëpp koy sétan comprendre wa Lamyn TV dafa am doge partout dañ koy sétan kon amna lo xamanteni gaay dañu war di yërëm bëri ñu ngi nak mbër yëpp dañuy toog di ko jooytu ñoo ngi wax suñu président parce que père Manga mii mooy suñu président ñun bëri mooy président a parce que moom xam na gàmb te jaar na si gàmb genre nit ñoo war di téye gàmb parce que xam nañ àqu mbër mu ngi nii jóge ay kilomètres Dakar ba fii ñëw pour superviser si nag yi kon dañu war a jàppale yërëm mbër mais ñun nag teg nañ ko si loxoom ñun de bu ñu yóbbatee nag une semaine après sax bu deewee dinañ ko contacter waa gàmb Mhm. moom mu ngi nii taxaw. suñu oh, papa ma nga looy wax euh, kontaan naa ci parce que yéen a waxal seen bopp ne. Mhm. nag yi baax nañu. te avant nag yi ñu teg ko. avant ñu ñëw. damay yoonu si woon benn commission boo xam ne ñoo yore làmb ji fii. Mhm. le président Amady ma woo ko. mu ànd ak ñoom Sarr ñoom góor gi aussi tout et consort ñëw. xool nag yi. ñu envoyé ma nag yi ba tey tey tey ci CNG wane naa nag yi loolu moo waral suma tànk tey donc mission laa ñëw tey CNG moo may yëbal pour ma ñëw seet si nag yi ñëw fii xool situation bi kon kontaan ngeen sant naa ci yàlla waxuma la ne nag si ngeen jëlee nag ba mu am une semaine su dee amul garantie waxuma loolu non am na garantie nag soo ko yóbbee mu dee ci saa si dañ ko dellu suñu jox xaalis ok waaw ok merci jaajëfal nañ la kontaan yow Papa waaw kii mooy Simon bu ñëw door moo daanu final niñ leen ko waxee suñu papa manga do moo jóge ba Dakar ñëw di def liggéey bu mucc ayib mu ngi nii nagu yaayam yaayam yi tey nag bu si bon dañ koy changer xaalis si moo bu ñoo jor looy wax si nag yi waaw sant yàlla rek waaw nag yi moom baax mhm. léegi lamb ji nga bëre ñàkk final looy wax ci lamb ji ak say supporter loo leen di wax wa di leen baalu ak rek mhm. waaw naan ñu yokk ñaan rek ñu gis na tamit mbër bu ci ne du mbër mun nañ wax ne mbër yëpp ku ci jël lu ëpp cinq nag lu mu dee wér am boobu nag boo xam ne mos nga koo jël si lamb mu dee wala mu indi lay problème nag boo xam ne daa bañ a màgg feebar mm-hmm. suñu papa ma nga doo jóge ba Dakar ñëw superviser si lamb yi lamb yaayam bi xool si ndax nag yi baax na loolu loo siy ko rafetlu rek parce que lii dañ ko yaagoon di xaar mm-hmm. Mm-hmm, comme def na yàlla rek waaw waaw lii la naaj la père nag yi noo leen gisee euh, kontaan a parce que avant ñu ñëw ci lamb ji am na commission bu ñu yónni woon loo xam ne mooy le président fii euh, FIMLA mhm. ñu waxtaan ak moom mu waxtaan ak équipe am commission bi mhm. le président de l'organisation ñu ñëw seet nag yi bi ñu seetee nag aussi envoyé nañ ma nag yi mhm. ci WhatsApp ma xool nag yi yóbbu ko tey CNG ñu waxtaan ñu ne nag baax na mais maa nga il faut nga def une euh, dañ lay yónni mission nga dem xool làmb ji xool nag yi gisal ko sa bopp xool fi ñu defee remise yi tout et console loolu mooy war a suma tànk kon maa ngi remercier le CNG boo xam ne ñu am confiance ci man yónni si ma pour ma ñëw yaayam. Euh, pour xool situation bi parce que làmb dafa métti. waaw mu loolu nekk xale ba pare yaakaar ci yëf ba pare. ñëw ñu jox la ko nga jóg gannaaw mu dee. loolu àkk la sax. loolu moo tax loolu dina denc. ku jëlati làmb. nga yóbbu làmb ji eggloo sa kër mu dee. foto ko. yónni ci wónni ci ñu remboursé la ko en en loolu ça c'est sûr. mais ci ba waxtaan ak moom. nañ ñu dimbale aussi benn nag ci cent mille francs ko.

leen di da ngeen di teel a ñëw làmb à partir de dix heures war na mun a jeex mhm. su guddee bu guddee ay dix heures mu jeex voilà ñun bu njëkk ba dañu doon bëre ba pare même pas huit làmb ji jeex ñu dem si mi ngi noonu waaw kon jaajëfal nañ la papa ñu lay gërëm di leen sant di leen encouragé bu baax a baax fi ngeen nekk ngeen ànd ci ay yar mhm. xale lu mu àndal ak yar ak teegin rek yàlla dina jàpp merci beaucoup Simon bu ñoojoor moom moom nag yi ana Simon Ah, waaw. gis nga moo daanu final ci poids lourd yi am ñaata nag. ñetti nag. ñetti nag tout droit ak ñoojoor mais ñoojoor maaga andu fa maga maaga jega maaga yenan naak ah aca kon tout droit nagu tout droit asan bujan waar ay nagam ñoo nekk nii mbër i siyaare am na avera ke asan wo ɓisi njom ne naak ke tout droit jon waar bika mbi kaa xum yeg yeg jega kumu lay kaa aha kii mooy Assane bu Dionewar waaw moom moo jël raw gàddu yi. yaa jël euh, soo continué noonu. yàlla na kaanu waagu na o fi. o cofale be ten o cofale ten a waaga jeg a jiijak bu jilaas ana jiijak

dan taxa yaac na giñ de bogo jeg na jeg ne tout droit tout droit mais caaka yow dañ lay wax ngeen di jooy ay at yow moom xam naa li nga deele ci ay nag moom ëpp na diis moom loolu moom c'est ëpp na vingt kay ëpp na nag kontaan nañ ci yow sa bi jàll na waaw gis dégg président Manga di ci wax moom moo nekkoon fee jóge ba Dakar ñëw pour superviser nag yi loolu loo leen ci wax non kontaan nañ ci ba pare rafetlu nañ ko parce que aussi dinañ la remercier gis na sa message bi kon buñ demee suñu kilifa gis ko ba mu ba jógee Dakar ba fii kon dañ mais moom tamit gàcce nga alaama def na liggéeyam quoi léegi nag ñi

woo ma rek. waxal numéro bi. 77. waaw 697. waaw 64 97 nga am oto. wax naa leen ko. jeex na takk oto wal caaka fay façon boo bëgg koy jaay léegi moo tax muy. Thank you.